mi ngi nuyu Cheikh Mahamadou Moustapha Ndiaye Al Karim di ko sant di ko gërëm. na ko maa nee na mi ngi lay sant di la gërëm. su ko ñaanal yàlla ab taxawam na moo ngi lay ñaanal nag sa taxawa yàgg lool na ko bis bi. nee bis bii. moo ko moom. nee na yaa ko moom. waaye képp ku fi taxaw. nee képp ku fi taxaw. yàlla ak jëmmam ak jëmmi sëñ Tuubaa tax nee na yàlla si jëmm ak jëmmi sëñ Tuubaa tax mu taxaw fi. waaye bis bi war naa raw ni waroon naa tey bisu tey nee na bis bi waroon naa raw mu di tey waaye nag suñu borom du ma ndox mu bëri mi nee na suñu borom nag moo ko dogale nii ndax ndox mu bëri mi waroon naa weesu fii waaye waroon naa weesu fii waaye dara waral ko dara waralu waaye dara waralu ko loolu ak baaxam nee na lu dul sa baax ak bëgg sëñ Tuubaa ak sa bëgg sëriñ Tuubaa ak bëgg sëñ Modou Moussa maasale na ñëpp na maasale nga ñëpp yemale na ñëpp yemale lu ma am. na loo am. mën nga ko def ci kër Sëriñ Tuubaa. mën nga ko def la ko xam. nee na barki démb la ko xam. waaye moom day jàpp ko ngir Sëriñ Tuubaa. te du nee na yow mënoon kaa bàyyi. waaye moom du la bàyyi. ba yow man xeeram. si Moussa nag nee na du la bàyyi. nee na yàlla na Sëriñ Tuubaa boole. ñun ñëpp. nee na mi ngi lay la gërëm. ndax bis moo ko war a moom. nee na yaa ko war a moom. sa diggante suñu diggante. lu ne xaj na ci. lu ne xaj na ci. da koo bëgg. nee na dama laa bëgg. mu bëgg la. nga bëgg ma. nga jàppante. ñu jàppante. nekk nga foo nekk rek ñu fekk la ko. loo nekk ñu nekk. ñu ànd. doon benn doon benn. doon lépp. kon nag bis bi. nee na bi. war ko moom. yow yaa ko moom. war nga koo njëkkale. war nga koo njëkkale. waaye lépp dara waralu ko. waaye lépp dara waralu ko. loolu Serigne yàlla na taxawaay yàgg. sa taxawaay yàgg. ci barkeb Serigne Touba. ci barkeb Serigne Touba. ak barkeb Cheikh Aliou Touré. mbooloo mi fa nekk nag. nee na mbooloo mi fi nekk. kenn ku ne. bàyyi naa ay solam. bàyyi nga say soxla. bàyyi itteem. bàyyi itteem. bàyyi itteem. ñëw taxaw ñëw taxaw ci bis bi. ñëw taxaw ci bis bi. ngir yàlla. ngir ak mbokk ak mbokk. ak mbokkum taalibe. ak mbokkum taalibe. ngir jëmi sëñ Moussa. nee na kon nag yéen ñëpp. kon yéen ñëpp. nee na kon yéen ñëpp. am ngëm. kenn ku ne. ma am nag dem. ak cant. seen taxawaay rafet na lool. taxawaay rafet na lool. santees na leen. santees na leen. gërëmas na leen. gërëm nañ leen. sëñ Moussa nag. nee na Cheikh Moussa nag. day gone goo xam ne. day gone goo xam ne. demagul fenn ci àdduna. fenn ci àdduna. waaye nag. waaye nag. sunu borom dafa def. sunu borom dafa def. ñëpp wut ko. ñëpp wut si ko. lañ ko wutsee. nee na nin la wutsee. ngir bëgg Serigne Touba. ngir bëgg Serigne Touba. jàpp Serigne Touba. jàpp Serigne Touba. ak doonu ak doon taalibe. ak doonuk taalibe. bëgg ak taalibe. ak bëgg doonuk taalibe. ak doonuk taalibe. ak sàkku taalibe. ak foofu taalibe mu ne. nga nekk fa. moo tax ñëpp wut si ko. nee ñëpp moo tax ñëpp wut si la. wala loolu moo dox. nee na loolu moo. ci yoonu Serigne Touba. ci yoonu Serigne Touba. ci yoon yal na ko àggale. ci barke bu guddi gi. yàlla na ko yeggal ci barke bu guddi gi. nee na yàlla na ko àggale ci barke bu guddi gi. nee